ñoo ngi fii ci Carrefour business group gis ngeen booy manifestation bi nga xamante ne nii amoon na démb ñoom daal daaji nañ ci doxaale rek daaji daaji palaasu jàmbur gis ngeen lu ñu def place bi daldi jël iPhone yi ci nekkoon yëpp bàyyi bu ñu ay pochette rek lañ ci daal di bàyyi daal di tojaale verre yi yàqaale boutique bi yëpp moo ngi nii gis ngeen li ñu def place bi. salaamaaleykum ami internet Sunugal 24 yi ñu safoo di ñu seetaan nuyu nañ leen bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii seet si borom Carrefour business group muy Cheikhouna Gueye ñuy méttit lu nag euh, di bokk ak moom naqar bi nga xamante ne nii daal dina fi am démb ñu daal di manifestation bi nga xam ne amoon na démb muy euh, ci diggante euh, Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang muy procès ñoom ñaar bi ñu waroon a amal affaire ca tribunal wuy ji xale yi nag ci daal la ñuy doxalee rek daal di dugg ci biir place am daal di jël lépp luy ay fan loo xamante ne nii moom mu ngi koy jaay bàyyiwuñ fi dara Cheikhouna ñi ngi ma saw di la nuyu bu baax waaw maa ngi lay fay soxna si di nuyu euh, internet yi. Cheikhouna affaire bi nan la demee démb. voilà ni mu demee démb euh, xëy nañu liggéey euh, puisque dëkk bi dafa amoon ñu teel a wàcc bi ñu demee ba minuit 49 minutes ma jot notification buy wane ne tuuse nañu porte bu boutique bi ci laa dugg ci caméra yi xool ne am na ay nit yu fi nekk. ci laa woote ñëw ba ci biir Yes bi ma fekk fi ñi nga xam ne ñoo ngi woon foofu ñoo xam ne ay dëkkandoo lañ. ma woote info ma woote wallu bi ma ñëwee ba ci boutique bi aussi euh, jàkkaarloo naa ak ñoom ñuy daj euh, essayé naa pour calmer leen benn video gis ngeen ko biy jàll may may romb noonu bi bi may bi may romb aussi ñu jëlati xeer toj para biru su su su oto bi ma continuer def tout droit dem ba ci euh, gendarmerie foire ma demee aussi ma fekk fi commandant ba expliqué ko li nga xamante ni moom moo xew mu woote ay éléments que ñoom daanaka yoof beeg yëpp ñoom ñoo yoroon euh, sécurité bi daanaka brigade ba ña fa nekkoon bëriwul euh, mais bi ñuy ànd ak ñoom di ñëw nag fekk nañu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di dëkkandoo yi ñu ba dàq leen ñu dem waaye itam biñ leen di dàq ñu dem itam fekk na le coup est déjà parti parce que itam jël nañ lépp loo xam ne moom lañ soxla woon di téléphone di ordinateur di ay iPad ak yeneen yoo xamante ni euh, xamaguñ daal naka la demee. Mhm. loolu ci ban lépp lépp daal mi ngi nekk entre minuit 49 ba une heure 40 minutes c'est-à-dire que yëf yi nekk na loo xamante ni lu rapide la. parce que lépp dafa nekk heureusement nag boutique bi dafa am ay caméra de surveillance moo xam ci biir moo xam ci bit dëkkandoo yi aussi jël nañu ay euh, ay ay ay ay vidéo yoo xamante ni moment bi ñuy dajji di dugg la maanaam daal euh, bu ma bañ bu bu ma bañu juum que ne ñii moom jàpp leen nekkul loo xamante ni lu jafe la. Mmh. yow yaa ngi koy wax ci say biir wax yaa ngi naan bi nga ñëwee yaa ngi leen di euh, jéem a calmer dafa mel ne ñoom da nga leen a xam wala. bon xawma leen mais xam nga man. liñ def ma maa leen ko dàq bi ma ñëwee ba agsi yoruma tànk oto laa su ma foncé woon ci seen kaw ñoom ñëppay gaañu wala au minimum dinaa ci mën a gaañ ñetti nit wala ma dammu leen mais duma ko jaral maa leen da maa leen gën a mën a def lu métti man li ma ci gën a métti rek ci yëf yi mooy imagine toi ma ñëw ngay dajji sama alal ma am courage bu toll ni bàyyi leen nga continuer dajji continuer nga dajji nga jëlati xeet tojate sama pare-brise loolu dañoo toj sa oto oui lu muy tekki loolu vidéo yaa ngi nii di di daw ci réseaux sociaux yi ngay daaj ji boutique gu jàmbur borom boutique bi ñëw ba agsi ñu ngi naan kii mooy moom boutique bi kii mooy moom bi ñu jëlati pare-brise toj ko lan lañ jublu ci loolu. après bi sa oto mbaa gaañu ñu la. non man gaañu ñu ma parce que wàccu ma benn yoon. gaañu ñu ma parce que wàccu ma benn yoon mais daal en cas sakaase nañ fi toj vitres yi jël ay machine ordinateur téléphone euh, voilà yàq nañ fi daal loo xamante ni wax dëgg yàlla mënu mënu guma koo pardonné. monsieur mhm. Guèye mbaa porté nga plainte wala. oui porté nañ plainte section recherche ak di Foire e, di ko entré kii bi nu mu tuddati enquête bi mi ngi mi ngi mi ngi avancé bu baax a baax. Mhm. ñëw bi nga xamee ne kii di Ousmane Sonko le 16 ndax ñëpp xam nañ ne le 16 duñ ne suba le 16 rek wala ginnaaw suba le 16 yëgoon nga ne procès dafay am mënoon nga woon na jël say matuwaay pourquoi jëloo say matuwaay wala nga wut ay gardien. waa jël nañ ay matuka mais xam nga gardien fii nii benn gardien la doon benn gardien pile a 40 personnes xam nga li kenn nit def ko parce que mat nañ 40 personnes benn gardien lan leen man gardien bi man mooy woote wallu ak def alerte wax dëgg yàlla def na li nga xamante ni moom moo di devoir am ba ñi nga xamante ni ñoo war a wàllu ñëw nañu le 16 bi itam nekkoon na lu ñu programme parce que bëri na ci ay bagages yoo xam ne dañ ko rawale Euh, bagage yi kon nekkul bagage yi kese yi. wàññi woon ba nga xamante ni que c'est-à-dire que li fi desoon jàppoon nañ ne xëy na duñ fi agsi aussi que jël nañ suñu ay sécurité nekkul na dañ ñoo fekk ñuy ubbi tëj nañ sunu place def nañ li ñu war a def yëpp mais ñun euh, mesure de sécurité yi xamante ni war nañ ko jël wax dëgg yàlla Carrefour jël na ko parce que le maximum da ci enquête bi Carrefour ñoom ñoo ko mane. lu tax yéen jëloo leen bagage yëpp ngeen yóbbu ko ngeen fi bàyyi sax tuuti. ah mais loolu xam nga doo ko foog. doo doo ko foog puisque ñoom parce que itam man bi muy guddi minuit maanaam 23h ba minuit à chaque instant maa ngi maa ngi ñëw ci place bi di romb di dem di romb di romb ba ku ma suivre sax gis nga ne dem naa ba ci Auchan bu Yoff ma gis ne ñoom ci Auchan bu Yoff bi lañ ciblé woon bi ma dugg dama dugg sama kër même pas 20 minutes sama téléphone sonné tëddu ma woon. sa téléphone bi mu après nu la def ñu wax la ne sa place dajji nañ ko. moom man xam nga tey jii man sama téléphone damay mën a xam lépp luy xew ci boutique bi. bu ma nekkee sama kër guddi gi lépp lu ciy xew dama koy gis li ma def rek mooy génn taal sama oto ñëw bi ma ñëwee aussi euh, xam naa ne su ñaar amoon naa ñaari possibilité manoon naa tiire jam mais je peux pas je peux pas faire ça bugguma bugguma jam doomu aadama mënoon naa accélérer mbëkk leen du ko def parce que bugguma rey doomu aadama sama conscience daf may rëbb xam naa ne itam yàlla moom moo ko dogal bu ki sama wërsëg jeexul dinaa jotaat bu ci sama wërsëg jeexee ma xam na daal li am solo mooy def naa la maximum li ma war a def lépp ci énergie ma def ko. Mhm. Euh, ñaata téléphone la ñu jël. bari na mënoo koo xayma ay millions daal xam nga téléphone yi am na ci yu jël yoo xam ne iPhone 14 Pro xam nga 14 Pro Max rek day jël 900 et quelques mille loolu boo jëlee ay quelques xaalis bu bari lay doon mënoo am nag takk bu wér ci ne lii la. mais daal jël nañ fi lu bare ci vidéo yi nga xam ne mi ngi circulé ci TikTok gis nañ exemple kenn day dugg yéeg daal di jël 4 kañeen dugg yéeg jug 5 kañeen dugg yéeg kañeen dugg yéeg ba mu jeex. voilà noonu lañ koy defee doo xam exactement faaw nga dem ba toog nag yor sa calcul xool eh, bi ngay wàcc lan nga fi bàyyi ak bi nga wàññiwaatee nga calcul lan moo fi des nga doog mën a joxe nag chiffre exact boo xamante ni kenn du ko laam-laame parce que du ñu bëgg joxe joxe joxe chiffre ni nga demaat ba suba nga joxewaat beneen chiffre day am lu muy ndiru mhm. Mhm. yaa ngi wax sànq ne porte nga plainte est-ce que jàpp nañ leen wala ba tey. waa am nañ ci xam nga enquête bu nekkee ci loxo yoon doo mën a wax yëpp mhm. en tout cas daal enquête bi mi ngi sori euh, te am nañu yaakaar te woolu nañ aussi suñu siste su réew gëm naa ne dinañ ci def lu ci war parce que itam ci ndimbalu média bi jàpp nañ ci bu baax a baax parce que média bi yëpp jàllale nañ ko gisu baak léegi euh, ñëpp ñu ngi ñëw di jël fee di ko génnewaat mu mel ni daal tiis la boo xamante ni dal na ci suñu kaw waaye oyof na bi ko sénégalais yëpp bokkee ak ñun. nan ngay wax ci euh, politique gu Sénégal ndax ñu bari ñi ngi naan politique gu démb ak tey bokkul ah politique bi léegi dafa salté su amee histoire day am coow day am rayante bi violence bi toj bagage jàmbur te bu njëkk amul woon. waa xam nga man ne politique duma ci wax maanaam man su fekkoon ne damay wax ci politique ñu ñëw sakaase ma damay xam ne man maa def lu tax lii am lépp too fay toolo politique moom yàq ak toj ci la bokk. man du ma wax ci politique kenn mësuma dégg may wax di défendre Sonko wala may défendre Macky wala may défendre nag citoyen laa nag am naa droit bu voté jotee ma xool kama neex ma votel ko mais ci public bi ñi nga xam ne ñoo may suivre suivre uñ ma parce que acteur politique la suivre uñ ma parce que damay défendre ki dañ may suivre parce que damay damay damay commerce damay suivre dañ may suivre parce que damay am ay vidéo yu may def muy am contenu loolu la ñu bëgg loolu nag sans rien à voir ak politique. mais politique bi ci la affaire bi su mboq loowee ba lii daal xew. parce que cest à ñoom dañu xaar ba manifestation am comme ni ñu ko defee woon mars 2021 sakaase nañ ci ay boutique ñoo xam ne seen yoon nekku ci parce que xam nañ ne lii mënuñu ko woon a def bu dara xewul. parce que mbir su dañ naan ñu ci bari dañuy mu buxloo daal di def liñ bëgg a defaale gàmm ak ñiy raas dem bokkuñ peut ñoom dañoo bokk ci ñiy raas dem maanaam du ma teg toor benn acteur politique ne moo def lii wala lii parce que wax dëgg yàlla nag loolu du sama rôle. Mhm. lan ngay wax ci réew mi. réew mi daal li ma leen di ñaan mooy que ñu gën a Euh, vigilant ci seen alal waaye itam gouvernement bi ñoom la ñuy waxal parce que itam euh, ay jeunes bu nekkee ci dëkk di liggéey soxlawuñu financement wu état soxlawuñu dara leen la ñu soxla mooy sécurité parce que dañuy jënd di jaay di fay li ñu war a fay lépp nekk ci réew mi on pays de droit la ñu nekk kenn ku ci nekk dafa am droit def li mu bëgg a def waaye itam état bu Sénégal dafa garantil kenn ko ci nekk sécurité am ñun li ñu soxla rek mooy nañ ñu garantil suñu sécurité ndomba ngëneel nag maju matul ndigg sagar lañ koy mottalee ma sagar boobu nag moo tax bu yu mel nii amee leen la ñuy soxla ci ñoom rek moo ñu toppal ñu suñu alal ba récupérer suñu alal jox ñu ko waaye itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko def ñu teg leen ay ay daan place yi fi nekk bari na lool macha allah lan moo tax ñu daal di jéggi place yooyu yëpp ndax euh, diggante minuit ak une heure guddeegul noonu ndax sénégalais dañuy toog ba ay deux heures du matin ci seen buntu kër di waxtaan ñu daal di bàyyi yëpp daal di ñëw ciblé euh, Carrefour Business. parce que Carrefour Business Group dafa siiw tout simplement. xam nga tey jii Carrefour Business Group mënul yem ak keneen ko xam ne mooy loolu parce que sénégalais yi dañ koy suivre parce que li tax mu am ampleur bii sax lim nekk Carrefour moo tax comprendre nga dama jàpp ne rek xëy na yàgg nañ koo suivre xëy na dañ naan bu ñu dajjee alimentation bi bu ñu jëlee saako ceeb lañ koy jaayee mën naa seeta mën naa dis xëy na boo demee ci boutique gu téléphone boo jëlee benn téléphone rek mën nga ko évaluer mu nekk un million presque nga jël ñaari téléphone mu nekk un million cinq cent te kii sàcc moom nu a duune gën ci moom. mais bi fi nekkee ba léegi mosoo am ak kenn problème non man aw ma kenn problème très sincèrement aw ma kenn problème aw ma kenn xaar ma yàlla ñëpp laa seqal jàmm nit ki nag mën na toog gis la mu neexoo ko xëy na mu am ay intention yu mauvaise loolu noo ci dara. loolu moom munu gëw ma ne am naa kenn problème nag wax dëgg yàlla ba mu war a mën tax mu agsi fii non bis yi bari na kon def nañ ko bu yàgg quand même. d'accord monsieur Guèye ñu bàyyi la nga daal di tàggatoo. en tout cas di leen sant di leen gërëm yéen Sunugal 24 waaye itam di sant di gërëm sénégalais yi nga xamante ni eh, bi depuis affaire bi am ba léegi ñi mën a ñëw ñëw nañ ñi mën a yónnee yónnee nañ eh, ñi nga xamante ni mën nañu joxe. Eh, seen eh, condoléance ñëw nañu assisté ñu ba nga xamante ni yëf yi daanaka bu ne bu noon sant fi mu ne nii wax dëgg yàlla mi ngi oyof ci ñun di leen sant di leen gërëm eh, di ñaan yàlla rek yi lépp leer waaye itam di ñaan yàlla ñu daal di jàpp ñu ko def ngir prochaine fois bu dul man mu bañ a ci keneen parce que itam loolu rek la ñu soxla.